bismillah waaw li xew ci Sénégal gi lan la les ko yéen a kaay ne en tout cas Tambacounda dee nañ fa reyee ndaw sa doy na warte ñaaw na lool Binta Kamara lay wuyoo danoo yegg ci kawam bari daal koy rey ci këram inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, waaw dama tabaayu xale jigéen boobee waaw mooy directeur général u ADL Malal Kamara lay wuyoo yaayu xale jigéen bi day waaw musiba bi da koo fekk laa lay wax ni mu kon dem ca diwaanu Chine gële a

de yegg seen kaw ba pare daal di leen rey en tout xew ni la doy na waar weeru mai bi ah neexul ci soxna yi de déedéet rek kay bëri na seen kaw lool ndaxte nag benn semaine rek ginnaaw musiba mbaaba kumba ba amoon ci diwaanu Thiès waaw lu ni mel nag la ñu gisaat kon ci diwaanu Tambacounda 24 heures a ca wakaam Binta Kamara nañu ko def ba pare di koy rey sànni ko seen kër na mbir maa nga xaw na kon maanaam ca guddi samedi ay booru 21 heures soxna soo xam ne nag maanaam fanweeri juróom jàpp kon ñeen fukkeetu yàlla day lañu fa gis solul yére dee déedéet daal di kon dee ca marché salañ salañ Aliou Sow nee na dara ku rey daal nañ la rey peine de mort enquête yéene kaay ne en tout cas lii naqari na ci xol de lool révoltant la xew ca Tambacounda waaye gardien ba day dañoo fekk ab ma niw maanaam ndoxum goor ci moom ci gardien xel day ci moom lañ njëkk a tey maanaam système numéro un libération yéene kaay man kay maa nit yoo xam ne kon enquête ba daal koy génne gardien reer yi ba ma dellu see day laa fekk ñu rey xale bu jigéen enquête bi nag li mu wane waaw mooy xale jigéen bi di Binta Kamara yegg nañ ci kawam daal di koy door doo ko faas allahu akbar police scientifique ba day ma nga ca Tambacounda yéen kaay Cheikh Mbacke gis nga yemu ca ndaxte nee dama ne la fan lañ ca rek laa la wax benn waaw lu doy waar xewati kon encore ci wakkaam gi lée wakkaam moom soxna si nga xam ne kon dafa dee waaw ba sapeur pompier Diakhaté waaw nee na suñu société bi ci boppam ah mooy soox daa bant daa bant rek daal di jëmale kon nag ca fitna di wàllum violence sur saane la xew ca diwaanu Bambey ñetti vigile benn étudiant waaw lan lu tolloo juróom ci ay samba surabaali ay bandi waaw daal di jël yóbbu kon ba ca biir ya àll ba ah daal di leen fee dóor torturé leen ba maara day taaleel ala wax dañ leen rey ab exécution bi avorté terminé yéene kaay na en tout cas bi day waaw dara bari ñaari xale yu jigéen ñu ndaw ca wakaam gëlee ñu gisati soxna su fa dee ca yaraax nit lañ fa for maar day taali tànku doomu aadama ca jamono joojee nga xam ne réew maa ngi toj waaw politiciens yi day ña nga seen rek ubbil Sud Quotidien nañu xam nga lan la ñuy jàppante waaw dialogue bi kan moo koy jiite enquête yéene ne leen noon aligné ah dañu ñëw professeur Alioune Sall wala professeur Babacar Kandé ñoo koy jiite de bëgguñu professeur Babacar Gueye te vol la piège la évidence seeni kaay xam ne ne dàq ko Aminata Tall day ca conseil économique ah ñi xam ne ñoom ñoo ànd nag ak Aminata Tall waaw nee nañu dara kabal la dañuy xaxar songu jëmale ci kawam ay attaque kese dañ koy xeex te xeex ba ne kenn jiitewu ko kuddul Mimi Touré ah ah kay ñooñu Aminata Tall yamuñ ca parce que nee nañu Mimi Touré day fayul nag naar bi xoromam aa ah, ah. parce que mook day Aminata gee boole exclusive yéene kaay mari dow di sauver goro laax rak dóor rax waaw parce que Mary Teuw Niane ak Lat Diop waaw dañoo nanguwul boor ci ginnaaw Mansour Faye ak Aliou Sall mi lée Macky Sall ci day waaw xamal na kilifay APR yi nekk ca doon France kale leen da ngeen wor vous m'avez trahi xaalis bi <laughs> million jox ko askanuk Tidiane yi lée ngir seen jumaa terminé yéene waaye grâce bi nga xam ne defal nañ ko Amadou Wuri Diallo génnee ko ci kaso bi waaw te mu doon jaay ay garab yu bon faux médicament tax na ba pharmacien yi day nee nañu ginnaaw ëllëg dañuy grève àllarba ji dama ne la duñu jaay ay garab directe infone soppi ndakaaru njaay jël joob def ko comme gali dëkk bi set est que président Macky Sall loolee dana ko mën Abdoulaye Coulibaly ci lay sa ko yéene kaa ne ah kay dana ko mën parce Paul Kagame wan na ko yoon sama liggéey ma bàyyi cey prix Sénico source année na Khady Dramé day waaw bu Louga ah. Ah. daal dinay nekk nag champion bu Sénégal day ci tarim al prix Sénico ba la ak Abdoulaye Sylla dama ne la xale bu jigéen bi gagné la lu tolloo fukki million ak juróom-ñeent la wax ah la ko wax alaaji xam naa ne de li ñuy jàng alxuraan ci mim réew ak liy ci mim réew ah waaye réew mi est-ce que waruñu koo sang boo paree ma ne la alaaji tëjal